xam ne ñooy militaires yi maîtriser nañ li nga xam ne mooy situation bi conseil de sécurité bu ONU tey jii danañu ca amal ab réunion yéen kaay gi di Vox yi ak L'As ak Sud Quotidien ñu xëy fekk fa Cheikh Omar Anne mi nga xam ne moom la ñu dénk njàng mu kaw mi moom nag daan nay rafetlu bu baax a baax étudiants yi nga xam ne teg nañu leen ay daana ci fi nga xam ne mooy université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru yéen kaay gi délibération moom mi nga xam ne moom lañ dénk njàng mu kaw mi nee nag ñi ne ñoo yëngatu ci lu jëm ci wàllum violence amuñu place ci sunu université yi commission discipline bi yi nga xam ne teg na leen ko loolee nag kontaan na ci te nag ñi nga xam ne ñooy commission bi maanaam seen rôle rek la ñu def yéen kaay gi di réew mi quotidien xëy duñu xibaar naan ñu Ndiaga Ndour jamono jii ma ngi ci guddi gu bët sédduku la ndax gendarmerie bu fédéral bu moo ko teg loxo def ko garde à vue ginnaaw nag boo xam ne Alaaji Njaay mi nga xam ne moo njiitu la 2STV defoon na ko Ndiaga ci lu jëm ci wàllum piratage ci ay fréquence ak lu soxal wàllum sàcc fréquence yéen kaay gi di alerte nee na Ndiaga jamono ji ma ngi cab garde à vue waaye nag soo muy tuwulay musiba ma ba kumba gu rëy dina ko dala yéen kaay gi de la témoin xëy duñu xibaar Camara nan ñu Ndiaga Ndour tey ji lay janoo ak procureur bi maanaam tey la ñu koy defeere yéen kay gi di direct news xëy duñu xibaar naan ñu en tout cas Sénégal musiba ma bu kumba gu rëy ba muy tuulee dana dal askan wi ci lu jëm ci wàllum wér gi yaram ge Sénégal jamono jii ci a bombu sanitaire bu doy waar doy waar si la Sénégal toog ndax relâchement bi nga xam ne moom la ñu gis ci sunu kilifa yi ak coronavirus bi nga xam ne maanaam moo yokk ci réew meek variant delta bi nga xam ne ci réew meek vaccin yi nga xam ne manqué na ci réew mi yéen kay gi loolee soo ko boolee ab bombu sanitaire la boo xam senegal si la Sénégal toog te Sénégal lan moo tax booba ba léegi munta jënd sax lu toll ci benn million doses yu vaccin loolee ab laaj la boo xam ne journal bi moo ko xëy di ko laaj xaalis bi nga xam ne mooy xaalisu Covid 19 bi xaalis boobee ana fan la dugg samp laaj professeur Moussa Seydi mi nga xam ne ab professionnel la def ay preuve am ci li nga xam ne mooy jàngoroy Ebola ji feeñoon ci réew mi jamono ji nag bu professeur Seydi waxee ñi nga xam ne ñooy jege ñaale Abdoulaye Diouf Sarr di ko songo yéene kaay gi di réew mi ko di cee xëy duñu xibaar naan ñu Ndakaaru niki démb toj na benn waay bu tudd Ismaïla la ñu doon attee te soo muy tuulee danañu ko tëj lu toll ci fukki ati kasu ndax moom da doon ci lu jëm ci wàllum njaayum drogue ni ki démb nag li mu wax attekat yi nee na leen damaa soxla woon un million trois cent loole moo taxoon ma yëngatu ci wàllum trafic drogue ndax dama bëggoon tukki dem diwaanu Pologne yéen kay gi de Les Échos ak L'Observateur xëy duñu xibaar naan ñu gox bii di Kër Masara maanaam faux billets ma nga fay jaaba jonge ndax lu toll ci deux cent soixante-quatorze milliards ci ay faux la ñu teg loxo fi nga xam ne mooy Kër Masara yéene kaay gii di las ñu xëy fekk fa Ahmed Khalifa Niass mu wax lu doy waar a doy waar ci ñi nga xam ñooy journalistes yi ak banque yi nee na lu jëm ci wàllum góor jigéen gi gars yi ñoo ngi wax rek waaye ci journalistes yi ak banque yi foofee la ëppee yéene kaay gi di la turbine xëy duñu xibaar naan ñu buggaan gi tani ma ngi woon ca xam ne mooy Macky Sall Macky Sall nag ba mu demee ca Thiès da doon wax naan poñse bi neex na waaye buggaan na ku ndayam liggéey du reeree poñse yéene kaay gi di réew mi ko di jeexee ci élection locale yi Assane Samb na attention ci li nga xam ne mooy caution bi ndax nag am na yenn proposition yoo xam ne gars yi ñoo ngi koy def naan caution bi vingt millions te loole nag bu ñu ko defee maanaam élection yi dañu ko bëgg a jagleel ñi nga xam ne ñoo am xaalis te nag mbir mi wër te demee noone te bu boobaa sax dañuy exclure ñu baree baree bare parti politique yi bëgg ngar daajjoo li nga xam ne mooy sistem électoral bi loole baaxul ci sunu démocratie yéen kaay gi di Source A xëy ci bi ba léegi nii Karim Wade ak Khalifa Sall bokk ca élection ndax article L31 ak L32 ba léegi ma ngi ci Amitié yéen kaay gi nee na c'est Rimka ak Khalifa Sall journal bi di Sud Quotidien nee na ëllëgu Karim Wade ak Khalifa Sall ci loxol Macky Sall la nekk yéen kaay gi di Walf Fadjri nee na en tout cas code électoral bu yées bi nañu ci def ndànk ndax ndëgg sërëx yi bëri na maanaam piège yi yéen gi di Stades xëy duñu xibaar naan ñu Angleterre niki démb éliminé na ñi nga xam ne ñooy waa Danemark fekk Italie ca final ba yéen kaay gi di sunu lamb nee na ñi nga xam ne ñooy mbokki Tapha Tine ak supporteram bay boo ñu ki nga xam ne mooy Boy Niang 2